wa rahmatullah barki borom Touba ñu ngi ci barab bu tedd bi jumaa ju tedd ci la ñu nekk fii boo nekkee taalibe wala nga nekk koo mënti doon boo duggee rek di nga xam ne fii beneen dimension la boo duggee fii rek di nga xam ne fii aljana la macha allah. Ah, yàlla nañ ñu ko yàlla fayal moom borom Touba moom Xaadimu Rasuul moom Cheikh Ahmadou Bamba ak képp koo xamante ne bokk nga si njabootam gi mun Mountakha Mbacké yàlla ko fi yàlla yàggal léegi nag gis ngeen taalibe yi tey la bésu màggal ñu ngi ci yoor yoor gi bés bii bés bu tedd la bés bu doy waar la te bés boo xam lépp lu waay ñaan rek suñu borom mën na koo nangu ci barke borom Touba kon ñu dem xooli taalibe yi nga xam ne ñu nekk ci ziar a ah, di dem dugg ci barab yi di ziar rawatina barab bu tedd bi barab bu Cheikh Ahmadou Bamba aja euh, góor gi nañ dem si taalibe yi ñu xool asalaamaaleykum wa rahmatullah yaay booy na def yaay booy na nga màggal gi ziar nga ba pare. waaw ah, waaw ziar naa nga yëg bi nga duggee ci biir jumaa yi. sedd na kuy. soxal sedd na kuy waaw waaw lan nga ñaan. ñaan naa ba ñaan lépp lépp lu ma soxal saa fi. ak sama njaboot yëpp. jërëjëf yaa ngi lay grand na nga def. grand na nga def. grand na nga def. sant yàlla daa ngi si jàmm. da ngay dem ziar bi. fan nga bëgg a dugg ci barab yi. ah. barab bii ah? ma jëm moom yaa ngi. salaamaaleykum. Ah, sëñ bi ñoo ngi ziar. boo bàyyi ko. Thiès Thiès ah. tey boo duggee fii ci barab lan mooy yëg sëñ a baax a baax. waxtu bi muy waxtu màggal dëgg dëgg fi mu nekk nii tey booy ñaan lan mooy say mbébét si ñaan. Ah, nga ba noppi tamit. Ah, ci barab bu tedd bi. ah xaritu ñëpp. ñëpp am ci moom cofeel am na ñoo xam ni sax man am naa benn xarit boo xamante ne fi mu nekk nii buy ñaanal Serigne Saliou. danaan yàlla na ko yàlla may gudd fan. Mm-hmm. ci baatin lay waxee na waaw yàlla ko fi yàlla yàggal allahuma amiin mu ànd ak wér loolu la koy ñaanal fi mu nekk nii ba tey amiin allahuma amiin xam nga xam hmm, nga coow li sax mun naa bañ a bëri ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonent bi sant sunuy wéyjur mu uh-huh. ngi santaat sunu sëriñ muy sëriñ Touba Baye Fallou ak Moustapha ak Basirou ak Abdallah tak Sall mi nga xam ne sunu xarit la ñun ñëpp hmm. donc diggante li nga wax léegi ci Serigne Serigne euh, Serigne Saliou loolu damay wax ni xam nga dafa mel ni ku wër foofu fanaan ba daje ko bëgg ko wéttal dafa naan tëjal buntu bi du leen jaaxal ndax xam nga woykat bi dana mbërum diina ma ca penkoog mbërum diina ma ca sow seen baat benn la fa yàlla mm. ñun ñëpp benn lañu fa yàlla ba Bamba Touba Maodo Tiwaawan Saadi bu ndim saat limaamu laay yox bokkul waaye nag Serigne Touba da ci di kenn koo xam ne yàlla moo ko tànnal boppam jaxase koog rasululaahi ba tax di tey jaam ñi jaam ñi di ko tiitaroo mm. li tax nag ma ne sànq euh, dafa mel ni kuy wër foofu fanaan ba daje ko bëgg ko li ndax Serigne tuuba moo xool Serigne Saliou ba mu neex ko nag mu ne kii nag maay man moom mooy man kon misaal mi mën naa bañ a sori mm. donc di ñaan di yàlla rek yàlla yokk leeram di ñu waat gudd fan ak wér ak cofeel euh, doole joo xamante ni koy mën di teewee saay su barke borom Touba doole mm. mm. neex yàlla kontaan naa dafa mel ni boo leen fi da ngeen di kontaan quoi barke Serigne Touba dañoo kontaan dafa mel ni ki tamit dafa mel ni ki boo leen fi jógee uh-huh. boo leen tiisee seen i soxla dafa mm. yàlla may ñu ak testament ñu ñaan. xam nga kii dogguma ko yàlla bu bu ko yàlla dog kii sama sama xarit la sama seex la sama jumeau la parce que maag moom bi ñu yàlla boole juróomi at la am ñoo duggandoo garderie d'enfants benn jour àdduna jamono yee di dox jamono yee di dox jamono yee moom nekku fi mu ngi Espagne lay dund mm-hmm. ba mu demee Espagne léegi léegi mu mën léegi moo war ñaar fukki at ñëwul tabaski Sénégal ñëwul Korité ñëwul 31 décembre ñëw dara moom màggal la ko fi indi comprendre nga hmm. ma toll jamono yoo xamante ni mu am nu mu demee ñu ñëw ci Serigne Saliou ma ne ko hmm. ah at bii di ñëw de bëgg naa fay indi sox hmm. yàlla balaa màggal gee ñëw yàlla defal ma ko. ñu fi ñëwaatee daaw jéeg ma am lu ma ko diisaat. ngir feddaliwaat sama kóllëre sama diggante moom dénkaat ko Serigne Saliou. ne ko bëgg naa ci taaw bu góor boo xamante ne sama xarit bii di Cheikh Ahmadou laa koy tuddee. yàlla mayaat ma ko. bari ren moom la ñu àndal kon sama diggante kii. ginnaaw yàlla ak yéen beeg wéyjo dafa am lu ci Serigne Touba participé am lu ci Serigne Saliou participé am lu ci Serigne Fallou participé. et may ci occasion bi aussi di leen gërëm yéen ñi xamante ne yéen waa Sénégal TV yéen a ngi def Sénégo TV a ngi def liggéey bu am importance ndax affaire bi innovation la rek waaw di wax ne lépp lu ngeen mën ren yàlla na ngeen mën déwén lu ko raw di santaat di nuyuwaat particulièrement sama sëriñ sëriñ Saliou Mbacke Bara Fallou lu lu mu demee mu xëcc boole ñoog waa kër gi tërituw yow moom du ma du leneen du leneen du leneen moom a ñor sëriñ Touba rek a ma ñor billaahi wallaahi taala moom kese moom a ñor man lii fête bi su passé pare barkeb Serigne Touba maam sëñ Saliou ah sëñ Saliou de wax dëgg neex yàlla ba may nekk apprenti mécanicien toll ni booy bi hmm. laa toog ci moom ñaan ko ne ko yóbbu ay ay daayira hmm. yi nga xam ne Espagne lañ doon yóbbu ay ay xéwal hmm. ma ne yal na may yàlla yóbbu Espagne si barke Serigne Saliou Mbacke ah. billaay wallaay taalaay teguma ci ay at te ñëw naa Espagne moo tax nañ ñaan rek. sant rek fii moom lu fi waaye ñaan. Yàlla dina la defal man <laughs> ñaan affaire bi nga ko ñaan nu nga ma waaye démb ko sama xar sëriñ yow maag yow ñoo bokk xar démb ko rek. yàlla nañ ko teewee ay déwén yu bëree bëri non koy réglé léegi ma am lu ma la dénk ñi xam naa ñoom mbóot moo xamante ne bu leen ñaanatee man damay ñëw na ko maam tey ñaanu ma la par force mu neex la mu naqar la par force li ma la ñaan def ko ne ko maam booy par waaw man asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu ñu leen di siyaar di leen bala wàq di leen baal wàq di ñaan suñu borom boo leen jéggal di wax jër jërëjëf Serigne Touba hmm. ndax kenn du moom hmm. ndax bu ñu am jàmm Serigne Touba la man maa ngi dëkk Porokhane maam Jaara bu su bàyyi ko hmm. démb laa màggal si xam nañ kan mooy Serigne Touba ndax ñoo dëkk ak way jigéen euh, barabu maam Jaara bu boo fa demee loo am ci soxla rek nga yebbi ko teg ko du am na genn kilifa na gu ma wax ne ma noonu duñ ko ñaanee da nga seet li la ñor nga yeesal ñëw ba ci soxna si nga ñaanal ko ñaan soxla si la tax a jóg ci nga bëgg barkab Cheikh Ahmadou Bamba doo fa deel ci tax a jóg te xam naa ci dara dund naa ko dundaan naa ko dundaan naa muy lan la wax man lan li ma dund mooy am soxla dem mu faju loolu laa dund. ci maam jaara ci maam jaara benn soxla laay mu waajee ba jekk dem ñaanal soxna si ñaan ko soxla si soxla si ma tax a jóg. billaahi balaa weer wi del. te boo ñëwee mu faju billaahi barka Serigne Touba du kenn Maam Jaara du kenn yàlla na yàlla fayal ñu leen li ma gën a neex ci màggalu ren gii moo dafa tombé bisub Serigne Abdoul Aziz Sy baax Malick nga xamante ne nii hmm. fu àdduna mos a jax yëngoo wala nit ñi tiit wala xol yi jax-jax yi hmm. Serigne Abdou boo waxee rek daal xol yi dellu moom dafa jaxasoo woon nag ak njaboot waa Touba gi neel waa Touba neel waa Touba kon bu ñu ba bis bi nga xamante ne si ci la génnee jamono hmm. mu dellu si waa tombé bisub Serigne Touba bi nga xamante ne ci la woon borom moom bis boobu Serigne Touba nañ fi ñëw Touba sant nekk ko mm. kon Serigne jërëjëf Serigne Touba mm. jaaraama maam Cheikh Ibrahima mm. na ñu suñu borom gën a dolli jàmm gën ñoo dolli sutura kilifa gi nga xamante ne nii moom la fi Serigne Touba nekkal la fi ne moo fi nekkal na suñu borom sakkanalal ñu ko bàyyil ñu ko fi te bàyyi ko wér ak sagoom ak xelam ba li mu xiine liggéeyal Cheikh Amadou Bamba suñu borom mën ko ko mottali ba daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar asalaamaaleykum wa a tur bi naka la. Euh, Soda Seck. Soda Seck Soda ziar nga ma noonu. Euh, ziar naa daal di dugg ci sang bu tedd boobu muy borom juru borom ñaapa ndar muy Serigne Sall. Hmm. alors tey bi ñaan gi nga xamante ni bëgg nga ko boobu bañ ba ba tàllal ko say loxo. Euh, ñaan gi daal dañuy commencé képp ki nga xamante ne mu ngi dëgg ci lali hôpital dañ koy ñaan yàlla jógal ko fa képp ki nga xamante ne mu ngi ci situation Serigne Touba teggil ko ko loolu la ñuy ñaan ñëpp am jàmm Sénégal am jàmm. Hmm. lan lan lan moo la booleeg Serigne Sall. <laughs> yaa ngi tudd fi sëriñ borom juróom tuuti rek tuuti rek euh, sincèrement parlé Serigne Saliou bokkuma ko kenn hmm? barki Serigne Saliou bokkoo koog ndax la bëgg ko hmm. bëgg ko rek ah, léegi yow nga bëgg ko aakimoo yow kese waaw ku la ne xam nga ku nekk ki nga àppoo man Serigne Saliou laa àppoo waaw ñu noonu mais man su ma neexee ma ne man maa ko moom waaw ku nekk rek ku am ku mu àpp su la neexee nga ne yow kese la waaye man tamit su ma neexee ma ne man kese la. dafa mel ni yow xam nga moom xam nga. waaw. Hmm. a ñaan mu defal. bëri na. bëri waaw daaw ba ma fii ñëw si nekkuma contracteur ren ma ñëwee nekk naa contracteur te walaay déwén bëgg naa xéewal gi a yokku. daaw bi ngay ñëw. nekkoo woon contracteur liggéeyuma laa nekkoon sant maa ngi sant. te ñaanoon nga ko ñaanoon naa ko mu may ma ko kon bëgg naa déwén balaa maa ñëw lu ma ko ñaan mooy mayaat ma ko rek. yaa yow bu garaaw <laughs>